xam nga lii ku koy dund nii neexul dund lii ku ko bëgg dund kan foo jëm boo bëggee bokk si nekk si gasoil bi nekk si huile bi boo léegi mbale nii ak poussière bi ak salté bi day métti ñun wéeratuñu suñu jabar yooyu ñun dund faj kenn ndax ndax ndax coono jàppale bu weer dee na maire ñëw taxaw fii indi la ay problème la fayu da ngay fay boo fay ñu kaanaalee tëj ka te loolu du jaaduwul xoolal fii ni mu mel mais du yoon ana suñu xale yi yëpp fi nañu foowee sibru beegi yëpp bu ñu jógee naan dafa ndar ndar set lii ndar set wecc lii taxul ñu naan ndar set ne nañu defaral suñu dëkk bi nañu defaral suñu jàmm gën gi ñun fii lañu am nañu defaral fii kii dara mais ara maire bi maire bi ban njëriñ la fi am mais buñ taxawee fii di wax daan dañuy toj dañuy toj ay bâtiment yu kenn xamu mais nañu defaral suñu quartier jàmm gën gii nañu defaral fii xool leen garage fii nu mu mel xool leen quartier bi nu mu mel zéro ana maire mais maire bi ban njëriñ la fi am amuñu kenn ku ñu dimbale ñun rek nii rek la ñu nekk at mu ne nii at mu ne nii ñun nag waxuñu kenn lu bon nu kenn lu bon li nu bëgg daal moo di rek ku nu dimbale si ngir yàlla ak lii mu mën fi jóg amuñu doole nag man sama bërëm kër dafa nelaw aw ma doom bu góor ay jigéen kese laa yor ku ne yaa ngi sa kër ak sama njaboot gu sew gii ma yor ku ne dama la dawale wute ndax du xamatuñ lu ñuy lekk xamatuñ lu ñuy naan xamatuñ lu ñuy bu nawet xasee ba ñëw nii rek la ñuy nekk. garage bi ni ñu mën a dimbalee ñu dimbalee ñu ko benn mbalit mi guddi gi gars yi ñuy këpp mbalit. ndox mi la même chose canalisation nan dimbali boog ngir yàlla war a suuli yi desal ñu ko dara oto ku fi génn da ngay fay ku fi yab yab bu fees dell boo génn da ngay fay juuti deuxièmement ba ñun ñuy borom place bi amul kenn ku fi tardal weer ku fi fayul ñu tëj la dañuy fay chaque fin de mois dañuy fay mille francs at bi ñëw nga fay 25000 francs impôt kon boog dañuy xool loo xam te ne jaar lu ñu war a dé ñun garas bi dañu am ñun place bi mooy suñu sac Mansour Faye ñu ngi lay lancer waat appel ñu ngi lay ñaan daan nga defal ñu lu ñu bëgg suñu garage bi mom la ñu am ba légui dafa taxaw ni dafa taxaw wax deug yalla dafa taxaw kenn mënu fa liggéey man mi di wax ak yow demb ak tay la ibi wat bo xolé li fi nekk ni kenn mënu fi liggéey kenn mënu fi liggéey ta dañ yor kër di fay courant da fay ndox lu ñu mëna jappal ñu jappal ñun place bi mom la ñu am ñi fi nekk ci président beeg ñoo ñi fi nekk liggéey ñu liggéey tax ñuy wax da dégg ñi fi nekk seen bop leneen fi nekkal problème bi mo muju problème ndox mi li mo muju xool fi ma taxaw léegi nooy sax mënu ma def xool xool sama daal yi yooyaan bu dem fii mën na sax fanaa am fa fanaa foo taxaw ñu lay kalkale fii bu gën a ci foo gaare léegi bu kër jàmbur ñu lay kaas naan da ngay gaare fii et cetera ñi nekk autorité yi jëmuñu si dara yaa ngi dégg muy bi yaa ngi dégg di président bi président bi toppatoo sax garage bi xam nga sax garage baa ngi doxam déet ñi fi teg lijjanti wuñu lu dul da jàpp la kalkale suy ñàkk fay la dina jàpp moo tax di moo tax ñu teg ñu ko fen xëy na tey ngeen ñëw tey ngeen gis lu mel nii mais daanaka ba nawet ba nawet baade laale ndox ba suñu jonee tey jii amuñu jàmm guddi ba ci heure bu tawee noo ngi si tong-tongal du ñu mën taxaw ci tëli bi bu ñu taxawee fee gendarme yi fekk jàppanu bu ñu taxaw ci trottoir bi fekk jàppanu fii nekk ni nu métti si ñun trop bon salte bi wax dëgg yàlla kenn mënu la ko wax parce que fii may waxee sax bu aree nañ tuuti rek am na géej yi ñu tegal fa xam ne ay sax la nga xam ne kenn mënu ko noy fii qu'est-ce que mbalit bee arrangé wuñu ñun waa Gaasu Bango arrangé wuñu parce que da nga saa yi boo ñii dëkk ci entourage bi ñoom fii mooy ci turukaay mbalit te duñ ko sotti ci biir kees duñ ko sotti ci suuf moo maay sax dina fekk si duñu wiide wiide seen foos bu leen toogoon ba guddi ngeen ñëw ñii dugg fii ñii yëpp seen foos fii fi ñu koy kon xam nga ne ndox bi du ndox taw kese ndoxam wiiraan su foos yaa nga ci kon nun fii dund métti ñu fay dund kon daal noo ngee ñaan kuñ ci mën dimbal dañ jëmal teel a tax